léegi nag damay dugg ak yow ci euh, ña euh, alikalaj bi. waaw ci Papa Sow mais balaa mu ñu koy jéggi daa am lu ne ci diggante bi. waaw mu caat daaw dafa la kaw gurde ñaari xale yooyu samedi la kaat. Mm-hmm. sa micro loo may wax ci caat daaw dafa la. waaw Babacar euh, caat daaw dafa ak kaw gurde dama leen seetaan. Mm-hmm. kaw gurde dama ko topp ci mbapat yi dama dem ci mbapat boo xam ne arène nationale la amoon. Mm-hmm. ñaari weekend kaw gurde tegle ko mu jël mise bi dem ñibbi. waaw te boo ko gisee bind ba bind mu mut loola rek. Mm-hmm. te boo gisee bëri ba ak doole ja moo ëpp yaram ba mm-hmm. mu nekk benn espoir boo xam ne foo natt bërim romb na ko mm-hmm. waaye nag day bëri koo xam ne nii dañ ne la euh, mbër mu ñu préparé la muy caat daaw dafa caat daaw dafa waaw loolu dama koy dégg waaw waaw mbër mu ñu préparé la xale dégg loolu te lépp loo gis ci mbër mu dégg daal ci làmb rek mu ngi ci caat daaw dafa la barke alaaji mbër mu loo gis ci mbër moo xam ne nii tey dégg na daal ci làmb boo mënee a rek mu ngi ci caat daaw dafa waaw man de wax naa nañ ko bàyyi xel yàgg naa koy wax jarul conseil ci làmb jarul ci làmb espoir bu mel noonu ci làmb da koy bàyyi rek muy dem ndax moo gën a bëgg sax ñu muy àndal ndam moom caat boo gisee ndam rek la xam waaw ndam rek la am te boo xoolee boobu ni muy mel ci signature mm. ak ni muy mel ci entraînement am mm-hmm. ak ni muy mel ci làmb ça fait trois du benn oh, non du benn muy combat boo xam ne nii cinquante cinquante lañ koy def mm. ndax caat daa defal defu ci làmb loo xam ne nii la kaaw def ci fara raw frappe sax dafa bëgg ci nag moom moo ko mais nag tey ji lii problème mooy daa daa dafa dafa nekk espoir mhm. jox ko jox kaaw gudde cinquante bi ma leen fi dalalee bi daal ñun taxawale seen tournoi ba ma dalal leen fii waaw kere ma mu njëkk bëreel muy yankaaw mhm. ba koy yankaaw bañ waxantee yankaaw xamal ko ne ci côté bëree maa la ko dàq def mhm. wala ñetti tournoi maa ci dàq bëre mu ne ko man xëccuwuma dàq bëre man daan laa xam kere lii la tontu billaahi wallaahi waaw muy xale boo xam ne ku jar a bàyyi xel mm-hmm. kon defe naa ne samedi tamit jàks nañu bàyyi xel journée bu journée bu nar a neex la mm-hmm. léegi nag Siteu Papa Sow ah. combat boo xam ne mm-hmm. yàgg naw yoon ñuy remercier le promoteur di remercier ñaari mbëri parce que sam la moo tax promoteur bi moom moo génnoon ay millions jox leen muy Pape Abdou Fall covid bi ñëw dal ci kaw dal ci kaw réew mi yépp dal ci àddina bi moom mu géré di muñ wax dëgg yàlla dégg guñu fu Pape wax wax bu ñaxtu ci ne sama journée wala sama làmb wala nàngam ñaari mbëri tamit dégguñu Siteu ñaxtu dégguñu Papa Sow ñaxtu ku ci ne am nga kilifa toog sa coin di liggéey sa liggéey di xaar ba tey yàlla dogal ñu dëgmal bés bi ay fan des ci muy euh, dimanche bi nu jëm combat boobu fadam tout balaa ñu yegg foofu ngor googu ñett ñoo ñu seq bés bi amee dund mu mettit ñu gérer loo ma ciy wax ci diggante Papa Abdou Fall Siteu ak Papa loolu ci am waaw xam nga Pape Abdou Fall dafa nekk benn promoteur boo xam ne ci wàllu làmb mhm. du bari xarit ci làmb Pape Abdou lu tax ndax dafa serein dafa dafa serein quoi mooy nit koo xam ne nii ah. euh, nit ko am la ah. waaw muy wax sax bu ñëwee ci làmb du bëri mhm. waaw day ñëw rek ne teg mhm. kon nit koo xam ne nii nit ku am kàddu Babacar dafa nekk xam ci làmb dëgg la te Pape Abdou Fall dafa nekk koo xam ne nii ñu bëri naqari deretam lañ koy kaasal te naqari deretam googu nekk ci dëgg rek waral ma koy def te dafa jël combat bi jëkk ko ci loxo ko xam ne ni ku jar a tekki loxo mi Fallou Ndiaye pour mu yor promotion lamb. waaw ak Azat ñoom ñaar la boole de. ñoom ñaar la boole jël ñaari ceeb doy lamb rek daal di koy teg seen jël promotion lamb def ko ci lamb arène nationale damay ragal 11h <laughs> mu waaw waaw mais Babacar dañoo jëm ci combat boo xam ne nii nag Sénégal yëpp tey. lu tax ñu ciy wàccee tey. Babacar. Euh, Papa Sow de moo ëppi combat. waaw moo ëppi victoire. waaw Siteu moo gën a doon xale moom mujj dugg ci làmb. waaw Babacar nañ tey ci combat boobu. tey gi lu ko waral. Papa Sow dafa am ci làmb loo xam ne nii Siteu amu ko. lu papa am te Siteu amu ko ci làmb lan la Siteu dafa am ci combat boo xam ne nii Papa Sow amu ko. Papa Sow daa am ci làmb lu Siteu amul. waaw Siteu am combat bu Papa amul. waaw Papa lu mu ci làmb lu amul. Papa su ma koy doon ci bés bu Babacar dana na ko Papa Sow yaa ngi bëri xale boo xam ne nii jox cër rek ay tax nga daan ko ak bàyyi ko bés bi te Babacar dama gis Papa mu def ci signature loo xam ne nii ma soñoon du ko indi làmb ja lu mu def. mooy bëgg a duma Siteu laa gis ci kanamam. maanaam da ko bëgg a ko corriger daanu ci lamb ja man maa la ko wax man Fadam déglu baax lii ma lay wax. maa ngi lay déglu bu baax ñëpp ngi lay seetaan di la dégg. ko indi woon ci digganteem hmm. de bras nga war a bëree tey jii ci combat bi nga jëm. balancement de bras mooy. lewato waaw lewato boo xam ne day ànd ak déplacement gauche ak déplacement droite. Hmm. ci bi su sa tànk tegoo rek cong la war a àndal. ndax bu fat ne Babacar Babacar Papa Sow day natt Siteu te ñaari crochet gauche yooyu muy dóor crochet droite ak kiy topp te crochet droite boobu day ànd ak te Siteu na xalaat ci àddunaam na bis bu def def na bu Papa Sow laal tànkam bi song ko bu sax ñàkk na làmb ja Siteu bu Papa Sow songee tànkam bi song ma sax laa la wax bu song ma saxee song ma saxee ñàkk na làmb ja ndax Siteu dafa am faay boo xam ne nii Papa Sow da ko am avantage mooy Siteu Papa dafa nekk ci diggante poxotaanam ak ndigam te pour mu jàpp ko day day yooru pour mën koo jàpp. papa day yooru waaw Siteu mooy yoor yi. mooy yooru pour mën jàpp. Hmm. kon Siteu bu fekkee ni tey jii Papa Sow bu bëggee daan na fexe bu ko Siteu jàpp ci ngemb. Papa Sow su bëggee daan Siteu. waaw non non. na fexe ba bu ko Siteu jàpp Siteu bu jàppee ngemb Papa Sow rek làmb gi tëju na. ci côté Papa Sow ci Papa Sow. ok Papa Sow daa war a bëri Siteu ci combat boo xam ne nii dafa war a xeex ak Siteu fexe Siteu fayu ci xeex ba loolu mooy indi avantage ci bëri ba Papa Sow dafa war a xeex ak Siteu fexe Siteu xeex mais bu Siteu téye boppam ci xeex ma rek arrangé wu Papa Sow Papa Sow dafa war a def balancement de bras ne coppe tànku Siteu bu ne coppe tànku Siteu day def day du koy bët def ak moom de corps andi bëre bi foofu. mais tey gi Siteu tey gi su ma koy doon ci làmb diggante ak Papa mais balaa ngay ñëw da ne Siteu bi xam nga wax nga ma li Papa Sow def te Siteu defu ko li mu am ci làmb te Siteu amu ko waaw nga ne ma Siteu dafa ko loolu mooy lan non dama ne la Papa Sow dafa am ci loo xam nii Siteu amu ko Siteu amu ko Siteu am ci làmb joo xam ne nii waaw Papa Sow amu ko naa daan Siteu ci congu hmm. waaw waaye Siteu bu jàppee ngeen Papa làmb ja jeex na Hmm. léegi décortiquer li nga ma papa li ko war li mu war a def ak nangam Siteu moom lan la war a def Babacar Siteu tey ji su ma ko doon ci làmb ja bu déparé këram hmm. tarkindaa yi topp ko bu ñëwee borom point seeras waaw na fa tarkindaa yi yem coow la luy loolu ndax day bëri bés boo xam ne ni coow taxul mu gañe ko du coowal nee na koy gañe non non bu ñuy liir lay bëri maanaam kon moto yaag convoi baak supporter yaag yëpp bu ñëwee borom point stade waaw Siteu bu fekkee moom mooy dégg waaw man Fadam maa ne ko waaw mu ngi bëri combat boo xam ne coow taxul nga gañe ko hmm. waaw mu ngi bëri combat boo ne nii ci diggante mag Papa bu ñëwee borom point Seras waaw na tar ca EDK ba ca EDK ba te buy ñëw na yenu seize indaale loolu mooy lan waaw seize boo xam ne nii bu ñëwee day toog ci mbikaayam Babacar hmm. ndax combat bu muy liir lay bëree combat boo xam ne conseiller koy gañee kon du combat boo xam dafa war a ne di animé ki dafay affaire pour yow. Papa bu ñëwee stade ba ni muy ba ni muy arbitre di siffler amul droit toog lépp loo xam ne dina ko def pour Siteu dugg ci làmb ji rek Papa ko a def waaye Siteu bu ñëwee stade ba ko war a boole ci làmb ji Siteu. Siteu waaw. tuus mhm. moo ko war a dugal ci làmb ji mu def loo xam ne da ciy yëngu. Mhm. Babacar Siteu tey jii su ma ko diwoon ci diggante moom Papa Sow. Mhm. bu tuusee ba pare day dem toogaat ci mikaayam ci kanam ci mikaayam day def ay jeux de waaye loo xam ne la ci làmb da koy moytu ndax faasa leen daan bërki dem te faas la ñuy bëri waatal ah papa nekkatul faas di wala. waaye xool xool yaa nga faas Babacar conseiller day jóge faas ñëw ci moom. ah. gars yi bàyyante nañ ñi rek mais xol yi li ci nekk xol lu ci tëj li ci njëkk tëj. dëgg Babacar wax nga dëgg de. Babacar dinaa la wax leen nga dégg ko. Hmm. surtout su ma koy doon ci diggante papa Sow. Hmm. du déplacement latéral du déplacement gauche. Siteu day natt Papa Sow boo xam ne tey jii diggante moom Papa Sow tolloon naag un mètre mu tàllal loxoom ba fa loxoom yem mu yem yemale fa garde ba gàtt wàccee boppam tolloo Papa Sow du déplacé wu. Siteu Siteu bu bu déplacé ci gauche bu Papa mu déplacé dina ko song te du ko yëg. maanaam bu papa di bouger ko topp bouger mu topp ko rek Papa Sow dina ko ruube te dina ci garde bi bu dugg ci garde bi dina xeex moom xeex xoon du dëgg te Papa da koy war la ko a def da Papa Sow lépp lu mu mënti def ci làmb ja gëmu ko ci xeex gëmu ko day songu day songu Siteu. est-ce que songam Siteu mën na koo euh, intercepter. waaw mën na ko mën na ko mën na ko mën na koo yàq. mën na koo yàq xam nga nu mu koy yàqee Babacar. waaw. Siteu bu fekkee tey jii bëgg naa daan Papa Sow. Hmm. bu Papa Sow mimee Siteu. Hmm. déclenché ko ñaari coup hmm. gauche di indi droite Siteu day arrière benn pas. bu arrière benn pas droite bi doon départ di ñu zéro lay doon. waaw arrière dañu am ci combat boobu. bu Siteu arrière bu départ bi bu droite bi di ñëw bu Siteu arrière ba gis droite bi ñëw. Siteu mhm. day dem. Mhm. bu fekkee Papa Sow Siteu bu fekkee gis ne droite bi di ñëw. Siteu mhm. day dem. bu fekkee Papa Sow dafa dóor gauche droite. indi mi ñaari gauche dóor droite. bu Siteu gisee ne Papa Sow ngi soog di ñëw Siteu da ko war a tëru ndax tëru mooy tax mu téye Papa Sow. sol ko benn nax ci poxotaanam téye ko. ok loolu mooy tëru. tëru bu ko tëroo. da koy laal li taf ko dugal loxoom ci ngembam. téye bërëb bi moom foofu Siteu Papa Sow ci penalty foofu bu ñu àggee foofu. waaw ndax tey jii Papa diggante mag si ku ci nekk da nga am loo xam ne da nga koo soxla muy sa avantage ci combat boobu Papa Sow bu ko Siteu jàppee ci ngemb mu ngi ci penalty yi Siteu bu dof dof loo ba Papa di bëreeg moom ci combat balancement de bras. Mm. song ko ci tànk si tànk ci penalty kon Siteu na fexe ne song moom Papa di ko song na ko fa fekk moom te li tax Siteu ñu fekk ko fa ci song bi mooy si day bañ a topp Papa Sow yi muy nekk. te du ko song te du ko song da koy daan. macha allah Fadam ah. waaye am na lu des combat bi daam dóor. waaw ah. dóor mu daanu am na ci mën na ci am. dóor mu daanu mën na ci am Babacar. lu koy indi. lu koy indi xam nga gars yi dañuy jaawale maa ngi dégg Sénégal gépp naan Papa Sow xeex euh, euh, xeexkat la mais gars yi dañuy jaawale xeexkat ak frappeur du benn. Papa lan la ci ñaar yooyu du la. mën naa duma mbër mais pour mu dóor mbër mu daanu yombul mën naa duma mbër. waaw mais pour mu dóor mbër mu daanu. yombul yombul non non yombul. mais pourtant dóor na bàcc saras mu daanu. waaw dóor na bàcc saras mu daanu mais boo seetloo Papa Sow li mu de ba mu dalee dóor mbër ba léegi. waaw benn mbër la dóor mu daanu. ah ci li ma seetaan man. te yàgg naa ko topp. Hmm. li ma koy wax rek Papa bu bëggee daan Siteu. Hmm. du bàyyi Siteu mu sedd. Siteu moom ci côté xeex bi. Siteu na nga Papa Sow fa euh, xeex. mën naa duma mbër Siteu xeexloo ma ko Papa Sow. déet waay. waaw dama ko moytu. ah lambi dóor la di. waaw lambi dóor la mais Babacar mbër yàgg naa moytu daan dem ñibbi Yékini fii la ko ba Bombardier ërtal. waaw yàqu arrière bàgg ca ngemb ga. waaw waaw. te ba mu ko bëggee daan daf ko juumloo daan ko. kenn du laaj ci moo xeex kan moo. ko daan wala ko daan la ñuy laaj. te Siteu day jëm combat boo xam ne nii jar naa taxaw seetlu Babacar combat boobu. Hmm. waaw ndax Papa Sow gis nañ ko mu dégager muscle boo xam ne gëj na ko am ci làmb gis nañ ko mu dégager fraîcheur boo xam ne gëj na ko am ci làmb waaw liggéey de am na moom waaw liggéey na liggéey boo xam ne liggéey Siteu nag fi mu ne dafa nëbbutu boobu ba tey kara sax euh, duplex bi kenn gisul ko Siteu ji kañ la ko ci dugal ci làmb ca signature bu njëkk ba ko ci dugalee da ko wax baat boo xam ne nii dafa jooyloo Siteu mooy la ndax dana ko sa état bii ma gis nii liggéeyoo dara Siteu moo yee nëbb boppam ndax bu liggéeyee Papa dina xam ci niveau entraînement la Papa Sow mën a jàpp mën ko daan Siteu lépp lu muy yor ci làmb ji na nekk surprise ci bés ba bu bëggee daan Papa Sow te na liir Papa tànkam boobu muy samp ci kanamam bu garde bi taxawee ci kanamam bu mu wàcc garde bi Babacar warta wàcc. garde Siteu garde Siteu bu gëddee Papa Sow nag Papa Sow di ñëw na xool Papa Sow ci ñaari arrêt de gauche yi ñëw. mu arrière benn pas bu arrière benn pas bu droite bi jugee avant droite bi ko dal na na juyal ak droite bi dem songe benn droite miime benn gauche indi crochet droite boo xam lay àndal bu songee na ko tëru ndax a tëru Papa Sow bu fekkee Papa Sow dafa déble mhm. boobu Siteu day juyaloo ak Papa moo koy song ji day xool droite bi song ko bu fekkee Papa Sow dafa dóor coup. Mhm. bu fekkee Papa Sow dafa dóor coup rek dem song ji. Mhm. Siteu da ko war a tëru. Mhm. muy combat boo xam ne nii. Papa Sow bu bu def def la ba Siteu jàpp ngembam. mu ngi ci penalty yi. combat mën naa gaaw. mën naa gaaw lool. naa gaaw lool waaye tamit mën naa yéex lool ndax bu gaawee Papa Sow la arrangé. gaawaay bi Papa la arrangé Papa bi Siteu la arrangé. ok Siteu la arrangé ndax li li indi lu mooy bu balancement de bras amee bëri am rek. Siteu jàpp te Papa Sow jàpp. de Siteu bul fàttali day xar jëppit day kalkalu mbedd kalu mbedd nga ma wax de mhm. tiir ba mu ñëw waaw jël sa tafu ko tafu koy daa waaw waaw loolu la boobooy boobooy kalu mbedd am na solo mu mel ni kon daal dimanche itam dinañ seetaan lu neex a neex a neex a euh, neex tey mbooloo ma fa war a ñëw yàlla nañ ko fekk tal ko loo leen di wax parce tamit soxla nañ fa dal soxla nañ fa dugg parce que sécurité bi promoteur bi moom dèjà pare na ci comme ni mu ko waxee maanaam mhm. dina ci def sécurité sécurité bi tey bu doon nekk arène nationale cent moom fas na ko yéene ba doublé ba deux cent wala trois cent maanaam exemple laay joxe euh, tey looy wax supporters yi parce que supporters yi ñaari cas yëpp muy waa parcelle ak waa jàmm gën ñuy nuyu supporteru Siteu di nuyu supporteru Papa Sow loo leen di wax ban adresse loolu leen di adressé pour le 5 euh, décembre bi nga xam ne moom lañ dëgmal muy bés bu rëy te ñaari mbër euh, li metti mooy ku ci ne da nga pertoon combat bi ngay mujj bëree looy wax ñaari camp supporters yi. waa xam nga tey jii euh, camp bi may njëkk dal mooy camp côté Siteu. Hmm. ndax Mame mi dafa ñëw wàllu yàlla ci barki démb te li tax mu gën a ñàkk ci làmbam mbooloo ma toppoon ci ginnaaw tax mu ko kan la ci Abu Niasse wala Abu Niasse ah Abu ok Abu waaw ci démb dafa wàll yan si ki làmb mook Pape ndooy mook Pape Ndoye li gën a ñàkk làmb ci làmbam jooju coowu làmb tax mu ñàkk ko coow laa ko ko xañ daal coow laa ko coow ko xañ bés ba ndax ñami àndal tuur nañ ko coow loo xam ne dem na ba yaakaar ne la ñoo ñu di wax mooy dëgg te loolu du dëgg ok te Siteu loolu rek war na cee jël bés te ñii ànd ak Siteu war nañoo mën a xam ne arène nationale la ñu jëm Babacar nañu moytu di yàq siisu làmb ji Siteu day indi mbooloo mu bare baree bare bari ci làmb. mais loolu kay booy boo adressé ko supporters yëpp. waaw supporters yi non ci Siteu laa njëkkee doo ko dem. waaw waaw ok te Siteu dafa nekk benn mbër moo xam ne ni tey nit ñaa ngi xaar tuusam ci làmb. ah moom kay ko jili sa ko nga na ko na ko may amateur yi te journaliste yi ba nga waaw journaliste boobu xam naa ne comme ni ko promoteur bi nare moom xam naa ne mm. comme man na am la ngeen la nam daan demee du ñu demee ndax sama classe gi yëpp boo sàggane moom làmb ja mooy loolu parce que promoteur bi tamit bon am na ay dispositifs yu mu yoo xam ne nii bëgg na amateurs yi bëgg yi bëgg képp kuy seetaan làmb nga kontaan bëgg na loolu mhm. waaw waaw mais tey xam nga tey ji Babacar euh, léegi yaa ngoon ci supporters yi nañ dal mhm. te xam ne làmb moom mënoo daanu dem féete ju ko Mali kii moom amateur bu làmb la wala wala kan ma décroché la wala waaw waaw maa ngi lay dégg. waaw kii sëñ Fallou njaay la. sëñ Fallou Ndiaye borom Ndiaye production. waaw borom de woote. borom ju làmbaay. waaw Fadam de ceddo la tuddee ma ne ko déet Fadam tu tuubal loolu. kii ñu tuddee ko sëñ Fallou nga ne ko ceddoom làmb. <laughs> loolu dana la wax na na na Pape Abdou Fall daa jël ñaari ceddoy làmb mu jox leen làmb ji Fallou Ndiaye ak Assane Ndiaye <laughs> <laughs> na trop. mais yaa ngi ñuy seetaan Fallou en direct ah. waaw. Euh, ak seen maa ngi vraiment en direct émission bi. Ah, ah. di loolu moom loolu moom Sénégal d'accord nañ ci. Fadam moom mooy number one dëgg la waaw mooy number one actuellement loolu la yàlla dogal. ah man de gëm naa Macky na ko woo moom Fadam mii de jaar naa woo de. ah woo de ndax réew mi. waaw loolu de yàlla dogal na ko parce que day macha allah de. ñu ngi lay fay Fallou Ndiaye ñu ngi lay fay. di am mbégte bu baax ci émission bi allah merci beaucoup. gis nañ taxawaay bi gis jàpp bi di nuyu Fadam bu baax. dëgg la. di wax ne nag li war a woote moom ku ne xam na ko. Mhm. waaw mooy la cinq. ndax ndax instant yi moom ñun taluñu suñu bopp li ñu tal mooy li Pape Abdou Fall di def. Mhm. ndax yaakaar naa lamb ji bari na. Mhm. nit yi bari nañ. promoteurs yi bari nañ. dëgg la. yaakaar naa bu amee ngor ak tepp ay quelques nit. neen dama dénk bés bi. sama yoon newu ci. dëgg la. kon yaakaar naa baaga bi du ku ñu waru ñoo xam ne. déedéet wallaay dëgg la. ngor da ngor a koy fay. dinañ dinañ ci def loo xamante ne mosuñu ko def suñuy bis. dëgg la. dinañ fa gis organisation bu rafet bu tegu ci yoon bu jaar yoon it. dëgg la macha allah. ndax ni ko Assane waxee Fadam waxee ko rek. Mm-hmm. mooy bu ñu ci leen ñaari jaay rek ne yéen a organisation bi te ku ci ne xam na ne ñooñu. Mm-hmm. actuellement bi ñuy wax ci làmb. Mm-hmm. yoo ci jiitu nag mu ne ah mu naqare. Mbadou <laughs> waaw <laughs> moom loolu la ah loolu kenn waxatu ko. <laughs> ah arrêt national day Jackson ne fa la lay <laughs> Jackson moom ne da la bëgg a détourné maanaam sa grade la fa bëgg a wàccee. non mais ak ko loolu. ak ma baax a ñun dañoo comme arrêt national dañuy commencé rek dañuy nuyoo rek. déet ci fàll daal loolu moo tax mooy baax a loolu am loolu day ñëpp a ngi koy xam. waaye di ngeen gis organisation bu jaar yoon. Mhm. ndax lépp luy jumtuwaay ci wàllu organisation ci wàllu événementiel incha allahu rabbi dañ ko def. Mhm. ndax nag day bis boo xamante ne ni ñun dafa am fuñ ko teg. Mhm. te it làmb boo xubbee ba léegi ñu ngi fi gis arène nationale mooy gis arène nationale waaye nag dañoo bëgg a ñëw def fa lu fa kenn mës a def. waaw macha allah. daal di ba ci ubbee arène nationale léegi dañ faa bëgg a ñëw dimanche def fa loo xam ne mës fa am mësu fa bu ñëpp di fàttaliku daal. waaw lu ñuy bind ci histoire làmb. ndax ku ne xam na ne dayoo bi Ada Fass Tapha Mbeur yor. waaw. yaakaar naa bu Ada Fass ubbeeg léegi suuf lañ mën a luyee teg ko ci suuf. <laughs> waaw loolu ah, loolu am na moom. yaakaar naa loolu moom ñun ñëpp njëkk. <laughs> loolu kon buñ nee ci Tapha Papa Sow. ne Ada Fass Tapha dafa mel ni yàlla ak yaaleen. wallaay dëgg la. te yaakaar naa li defar combat ci Tapha Ada moo defar ci Tapha Papa dëgg la. ndax tey bu ñu fàttali ne am nay xale yu ci ne ay ay Bécaye bu saa njàmbur. Bécaye bu saa njàmbur. ay trompeur ay Lastander ay tir boobu bu bu tiwaawoon ay tir boobu bu bu tiwaawoon. tir boobu tiwaawoon. ay doomu Modou Lo ba. Hmm. Ameth Lo waaw Ameth Lo fils de waaw. xale yooyu yëpp ñu ngi ci bi c'est-à-dire nag bi dafa dem ba suul ndaanaan yi ne ci bi premier combat ba a faj faj. fañ leen dugal a tax. fañ leen dugal nag moo métti ci ñoom. trop waaw c'est Papa Sow baa mais teewul xale yi dañu wane seen bopp ci bis bi. Mm-hmm. ndax nag Ada Fass dafa am li coow li bari bari. Mm-hmm. balaa mu jeexee ñi dañoo topp Ada Fass ñi topp Mor Kang Kang. waaw waaw waaw bés boobu yaakaar naa bu dee coow mm-hmm. ci dëpp la ci Mor Kang Kang coow tey. déet Mor kay coow lu rëy la yor sax. Ah, wala moo yenu coow la. Mor kay moo yenu jogget wa kere balaa mu jeexee. kon tey làmb grand combat spécial amu ci importance. dëgg la waaye wax nga dëgg. ndax boo xoolee tey combat doomu jalaaw boo ñaar deux deux bis mi. papa booy jinne papa booy Ma Ndiaye ak Agro tey ba làmb ya jeexee ñëpp Baye Ma Ndiaye lañ topp. waaw Baye Ma Ndiaye lañ topp lay wax nga dëgg. te bëriwul grand combat ba wax nga dëgg Fallou wax na dëgg. c'est-à-dire làmb grand combat spécial amu ci njëriñ. déedéet. li ci am solo mooy yow mi na nga wane sa bopp ci business. Mhm. promoteur yi du ñay du ñay seer. amateur yi ñu amateur yi du ñay seer. képp ku ñëw ci bis bu nekk sa bopp yow la ñuy te yaakaar naa loolu mooy am nag dimanche incha allah dinañ gis beneen daanam bokk ci tàkk Papa Sow nañ gis yeneen daanam sax la yàlla bokk tàkk Papa Sow. dëgg la ci bés bi. en tout cas amateurs yi nañu teel mm-hmm. ndax li ma wóor mooy Babacar si stade bi am nañu yàqin ne dina fees incha allah bañ tëj porte yi. ndax liñ dëgg xam nañ ko xam nañ mbëri mag yiñ dëgg xam nañ mbëri ndaw yiñ dëgg. Mhm. làmb dañ koy jox cëram te yàlla dogal na cër bu làmb jox nañ ko mat sëkk. dëgg la. bii nag ñu ko loolu nag Babacar. ndax ku mel tey comme am na ay centaine de millions la. waaw. nga ñëw ne supporter yi trois mille. cey. amateur bi cinq mille. cey Fadam. anak ci loose bi ñu def ko dix mille loose bi ñu def ko vint cinq mille. waaye Fallou yéen kay ñëpp ngeen bëgg ñu dugg. waaw. boo gisee ñuy def loolu nag dañoo gis ne day dafa am bu raada faaw. Mhm. ba da dañuy ñëwaat loolu bi deel naa fees ba nit ñi amuñu fuñ toog. bien sûr borom Njaay production macha allah vraiment itam lii mooy ànd ay nit bu ñu àndite volonté parce que nit ku ne dama naan ànd kenn du ko forcer ah ku ne da ngay ànd ak ki la yàlla booleel ki nga mën a àndal. Mhm. ànd nag su amee li koy dundal mooy muñalante di jéggale tey jëllale ndax kenn matul. ndax sa xarit bi nga xaritool ngeen dund àddina des fois da juum ci kanamam muy juum ci sa kanam mais lay tax ànd ba suuxatu ba mën a avancer jëm ci kanam ku ne da ngay am looy jéggal sa morom am hauteur mhm. yaa ngi dégg defe naa Pape Abdou Fall tey ñii ay mhm. na làmb wóolu leen dénk leen ak yeneen promoteur mhm. ñu fas ko ne doxalal bés bi defe naa itam loolu la Fadam waaw mais Babacar rek ma moo loolu moo war loolu moo war loolu moo war Pape te ñi mu jox làmbam jox ko ay cuune ci làmb dëgg te dafa nekk ci bés boo xam ne nii ci làmb mhm. bés bi dafa laaj organisation bu jaar yoon bu jaar yoon bien sûr ndax si euh, day woo amateur yi làmb yi mhm. day indi ay supporteurs ci làmb mhm. Papa dafa day indi ay amateur te indi ay supporteurs ci làmb te dafa am ay combat yu ñu ca bootal muy combat yu am solo macha allah Babacar li may wax euh, ñaari camps yi si te yi amateur yi dañoo namm tuus wallaay Papa Sow yi dañoo namm face bu sax ci yow te Papa Sow daa am loo xam ne amateur gis ci moom te gisatuñ ko ci moom. Mm-hmm.